defee mbokk yi dañuy continuer programme bi parce que fii dafa am temps boo xam ne fekk ñu bi ñun ñu ngi waroon pare à 16 presque temps bi li si des bëreetul kon dañuy dugg kon ci waxtaan bi am yenn représentant yoo xam ne dañ leen jox kàddu di ñaan aussi ku ci nekk gàttal pour ñu mënoon def ku nekk benn cinq minutes rek ñu tënk li nga xam ne dañ koy wax ki ñu njëkk jox kàddu gi mooy Imam Gueye. ñu jox kàddu gi ñu sànni si kàddu suñu paree jox suñu mbokk Babacar Cissé wax ci turu représentation euh, waa Diama yi su paree ñu suñu inspecteur Ndour moom it mu sànni si kàddu bu defee ku nekk gàttal après ñu dugg ci parrain yi suñu jógee ci parrain yi jox Mouhamed moom mu def le mot de la fin mu gërëm partenaires yi gërëm ñëpp li nga xam ne nii dañ fi euh, jàpp ci journée bi su fekkee fi mu jàll ci Babacar Cissé mu wax waat donc euh, ñu jox imam Gueye du moins sant bi dafa ma yaakaar ne Gueye léegi nag jël ba soxla c'est le wax kon jox imam Gueye macha allah yi ngeen yal na yàlla nangu lépp si barke alquran karim mu doon ngir moo xamante ne nii dañ fee ñëw ci turu dañ si turu famille Cheikh Tidiane Gaye mhm. rakkam bi nga xamante moom la bokkal ndey baay mu sës si moom bi Pape Moussa Gaye moo naroon di ñëw dafa am ndànk mu yebal ñu waaw ñu ànd ak suñu doomu sëriñ di soxna Seydou Sall di doomu sëriñ Abbas Sall ñu ngi nii toog ci sama kanam yaakaar naa xam ngeen ko bu wér moom teewaayam rek doyoon ndax kenn ku nekk boo xamul wala dégg nga diggante sëñ Abbas sëñ Assane bi nga xamante ne moom ngi ci Cheikh Tidiane Gaye Cheikh Tidiane eh, nag kenn dootul wax si moom daanaka lenn doomu mooy li nga xamante ne moo lii ëllëm jamono teel a demoon dem bi nga xamante ni moom la teel dem ni sëñ Assane defoon si sëñ Abbas bu ñu bettul woon noonu la ñuy def sëñ Assane bi nga moom ñu seen Cheikh dafa ni woon su Abbas na lay gàtt fan yal na yàlla jël ay fanam moom Abbas loolu nag ku ne am na niveau booy toll ba tax nga egg foofu si sa nit waaye seen cheikh it bu ñu bettul woon dinañu egg ak moom foofu ndax jar na ko ndax diine ndax tarixa Cheikh na ak jëf jim si doon jëf nanguwul woon kenn ku laal ji wala nga laal tarixa Cheikh na ba tax na kooku nag teel a demoom ah métti nañu bari waaye nag yàlla moo ko moom moo ko soxla moo ko jël kon ñu sante ko suñu borom di leen gërëm nag yéen ñi fi teew yëpp yëpp ku fi teew di la ñaanal yàlla rawatina ñoom siise ñi nga am ñoom ñoo organisé mbir mi moom mii ñoom ñun ñoo bokkoon di def formation AIMA fii si institut islamique ñoom ñëpp ba tax na kon lii ah bett bi si ñoom ndax ay ndaw nañu te ndaw yoo xamante ni dañoo jël seen tànk teg ko si farata sunna ndaw yu mel noonu nag dañoo jël ñaanal yàlla ak xalifa nga xam te ne nii moo doon ci sànq suñu ñëw ne suñu ñëw ay yu am maanaam nañ ko gën yaatal nag parce que loolu mooy li jafe ci suñu réew parce que dëgg amatul bëggatuñu dégg dëgg bëggatuñoo def dëgg ba tax na yooyu nag di ko yaatal di ko jàllale ci télé yeeg rajo ba nit ñi man siy jot ba xam fi ñuy teg seen tànk daf siy baax ndax jamono moo ko laaj ba tax na ah dañuy bañ guddal ba tax na kon soxna Seynabu mi nga xamante ni nii moo fi toogal tey famille bépp muy ñun ñi bokk si sëñ Cheikh Ahmad Tidiane Gaye ak ñi nga xamante ni ñoo bokk si sëñ Abbas Sall moom ñun ñun ñooñu ñëpp moom moo ñu ci teewal day jigéen daf maa xoj sax ndax dama ko noon moom moom laa bëggoon mu wax moom mu jox ma kàddu gi ba tax na xëy na lu si jub rek xëy na si yàlla la li dëgg nag ngeen xam ni jàmbu matul la moom mooy wax si kanamu mbooloo bi ngeen baal ñu am yéen yàlla boole jégal kontaan nañ si yéen yal na yàlla kontaan yal na leen yàlla fay lii nag ñoo ko yëkkati woon jox ko mu doon suñu participation comme jaayeen yeeg dooyeen yeeg booyeen ñaax ah ñu gën see dool si xéewal gi rek wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu baal naa. jërëjëf jërëjëf tey macha allah kàddu yi wax dëgg am na solo ñu ziare. am mbégte ak kontaante lool di teew ci jotaay bu mel nii di nuyu def bopp yi nga xam ne daf teg di jël nuyoo boobu di ko teg ci loxool. Serigne Mahamadou Bachir ñi nga xam ne moo am initiative bu taxawal lu mel nii àndi ceeg mbokk yi ci àndal ñoom ñëpp ku ci nekk ñu lay nuyu di la sant di la ziar euh, kàddu yi ñuy jël nag euh, dafa ko bëggoon a tënk ci ñetti point premier point bi mooy indi kàddu sëriñ Mouhamadou Moustapha Cissé li nga xam ne tey mooy sëriñ jaamal nekk xalifa ba waaye itam di leen jaale laaj Mouhamadou Cissé mi nga xam ne moo fi jógee ba fi dem rek ñu gis Sénégal yëpp ñëwoon jaale si ko yéen ñu leen di delloo jaar boobu donc sama premier point di turu xalifa bi laa koy wax turu njaboot sëriñ jaamal yëpp euh, ñaareelu point bi man ñëw mel ni ko xawee ni hommage ci alaaji Mamba bi Cissé ak sëñ Moustapha Cissé bi nga xam ne man naa wax ne li ëpp ci sama dund ci moom laa ko man naa wax ni itam mooy université bi nga xam ne mooy moo ma formé kon kooku xam naa ko man naa wax moom lu bari ndax ànd nañ maanaam moom lu mat ñaar fukki xam ne lu tëdd ci la toogu ak moom wala Touba nga toog ak moom kon kooku xam naa ko bu baax beneen bi ci des itam euh, kàddu mën naa ko tuddee temps yu xaat ci point yi nga xam ne moom la fi mbokk ñu wax sànq ci défi yi nga xam ne moom la internet bi indi loo xam ne mën nañuy tuddee na am na côté positif waaye am na côté négatif euh, loolu mu nekk lu am solo boo loo xam ne. xëy na ci kàddu yu rek euh, bi ci des Serigne Mouhamadou Bassir Serigne Moustapha Cissé li nga xam ne tey mooy kalifa Serigne Diaba mu ngi ànd ak yow ci bés bii di la wax bi dafa xat tombeeg ay événement yu bari yoo xam ne dafa am ci Saloum moo tax njaboot yépp ñëwul ñu seet di ko def épreuve bu wutee ñu yebal ma pour ma ñëw représenté waaye amoon nañ yéene ñoom ñëpp ànd ak man ñëw ñu fekkee bés bi loolu maa nga koy wax ci digalu euh, ci kàddu xalifa bi ndax bis yi mu la ndax ku ne xam na Serigne Jaamal ak maam Aliou Fatou Cissé nga xam ne dafay wax ne duñ ñaari jëm waaye benn jëmm la ñu ndax boo bëggee xam kan mooy borom Jaamal te xamoo kan mooy maam Aliou Fatou doo mën a xam kan mooy borom Jaamal boo bëggee xam maam Aliou Fatou te xamoo kat mooy borom jaamal doo xam maam Aliou Fatou kon ñooñu du ñu ñaari jëmm benn jëmm la jëmm boo ci xool rek ñu def la morom loolu dafa am solo waaye loolu itam ñu gën koo gisati ñun en tant ay ndaw ci euh, suñu waajur Oustaz Ahmad nga xam ne man tey damay wax ne du ma ko sax ne monument la mais dama naan bibliothèque la nga xam ne tey képp koo xam ne yaa ngi gëstu ci borom jaamam boo dajee moom la nga soxla woon ci borom jaamam yëpp dana la jox ba tax na tey ñu bari bu ñu demee bu ma def seen ay a def ay gëstu yu yaatu ci ko gërëmoo ko ñaanal ko yàlla taxawaay boobu mu am ci encadré ndaw ñi encadré njaboot bi loolu itam ñu koy ñaanal yàlla dinaa fa ñi nga mu nekk loo xam ne ba ay wëy juróom te bon daa nga fala ko teg koy sant ko gërëm baax rajo ah, maam mi fi jógee ba fi dem rek daanaka li arab na sëkk ñu waxtu moom ñaari baat ndax ñun bi ñuy doon xale mën nañu wax ne xamuñu suñu wëy jur ndax góor bi bi muy génn àdduna boobu ñun ay xale yu ndaw lañu bi ñu demee nekk mag sax dañ doon xam ne alaaj mu abdu du suñu papa suñu mag la kon kooku lii ko booy juróom bàyyoon gannaaw sàmm na ko matal na ko nekkoon ku jàmbure ku gàttoon tànk ku bëggoon nit ku mënoon a maslaa te den bi ciy joxe ñun ñi ñëpp ay ndaw la ñu benn génération lañu lu xale tuuti tuuti jàmbal boo ko gisee ñaar ngay fekk nemmeeku ci moom mooy summi na daal yi ak bëñam ak yaatu kanamam loolu moom képp xamee nañ ko nekkoon nit ku baax soo xam ne ay waajuram tegoon tànkam wala naa ne jëmm yu noonu ñun en ay taw ñooñu ay référence ñun ndax noonu la mos a mel noonu la mag ñi mos a fekkante man mii damay fàttaliku bi ma nekk xale daanaka ci topp fi ma fréquenté jaabar kër Maam Ali Fall la jamono boobu Yankhoba Cissé ak euh, suñu mag bi aji faam eh, bu ma xëyaan foofu laa daan bu ma añee fa laa daan naan aji fa laa daan waxtaane fa laa daan defee lépp pour wax ak jaam ak noonu la ñu yaree loolu itam dañu ndaw ñu comprendre dañ ko mel noonu kon bés yu mel nii di ko taxawal am na solo beneen bi ci des itam ñetti baax laa ciy wax rek mooy Serigne Mouhamadou Moustapha Cissé li nga xam ne gis nañu photo ci ci banderole bi moom itam nekkoon jëmm joo xam ne damay wax ne ni mu liggéeyal Sénégal ci wàllu diplomatie ci wàllu relation ci wàllu taxawaay lu am solo la chaque fois daf mën a doon ne Babacar ndaw dafa war a ñemee contradiction ndaw dafa war a ñemee gëstu ndaw dafa war a xam li xew ci àdduna bi waaye ndaw dafa war a comprendre li jamono indi parce que yooyu bu ko ndaw comprendre rek day tax du mën a euh, xam fi mu war a fi mu jëm bi mu fay demee daf ma daan wax dëgg yi tam ne ma ñun waa daara yi dañoo nekk environnement boo xam ne bu ñu góorgóorlu suñu nekk dina jafe lool ndax dañoo nekk environnement boo xam ne dafa am ñaari culture yu fi dëkkee te première culture bi mooy l'islam ak enseignement arabo islamique li nga xam ne daf ne fi tey mën na yoon junnee ak wala lu ko xajal beneen enseignement boo xam ne ñu fi ñëwee léegi yàggul waaye enseignement boobu itam dem ba mel ni xaw a doole boo koy bund ko daal mu ne bu ñu amul fit xam dañu bëgg dëggin ak ñoom dina a jafe moom na combat yu am a am boo mën a am enseignant rek nga mën a doon ci dëkk bi mën nañu ñëw ñoo xeex ak Senghor ba ñëw bi section diplomatie ci ENAM mën nañu ñëw ñoo xeex man ak sëñ ba ñu reconnaître enseignant arabe ci réew mi mën na loolu nag ay combat la yoo xam ay nit a ko waaye dafa bokk na buñ fa tolloo xalaamboo bi yéen ay ndaw yéen a ciy jël euh, taxaw lu mel noonu kon jëmm ju mel noonu def naa ne ci mu liggéey réew mi taxawaay ak rafet am na solo beneen bi may daanale rek Euh, te mbokk bi wax ko sànq muy yi nga xam ne internet indi na ko dafa am benn borom xam-xam dafay wax mu ne mbir boo koy xeex te xamoon na maanaam euh, jàngur bi dëgg-dëgg fi mu nekk xeex te dana jafe loolu ndax ñun ñëpp xam nañ euh, jàng nañ ko ci histoire li ñuy tuddee xolu bu sali biir boobu xeex loolu boo xam ne dafa nekkoon ci diggante ay catholique ak ay jullit Euh, mu am benn borom xam-xam boo dañ ko jàppoon ci jullit yi ci yéefar yi dañ ko prison li mu nekk ci biir prison mu xalaat ne jullit ñi daal pour gañe leen loolu dañuy jël arme tey ñu rey si ñun bu subaa ñu si ñoom waaye jàpp naa ne pour xeex l'islam ak jullit ñi ñett laa gis ne si lañ mën a sukkandiku pour mën a xeex benn bi mooy dañuy tuddee information information ku ko wax xam ne ñett la dañuy bind dañuy lire ak bi ñuy wax te def naa tey bu ñu xoolee monopole boobu tey ñi ko yor ci àdduna bi du ñu ay kon def naa ne loolu bu ko jullit ñi bàyyi xel rek euh, na yu bëri dina ci mën a mujj te alhamdulilah ñu mel ni Cheikh Bachir na ni bàyyi nañ ak lu mel noonu parce tey am na fi mu toll ci wàllu média ci wàllu communication tey ku fa mënta jaarale say mbir ñeneen dinañ fa jaarale ci seen tëri mbir ñëw yilif la toog sa kaw si doote man dara kon encourage lu mel nii di sant mbokk yi di gërëm lu mel ni tey ñu ñaan yàlla mu gën a law ndax dañuy wax ne daara boo gis nga ko sos yéene mooy ëllëg daara di màgg nekk université waaye bu dee xam ne itam mas na am itam boo gis itam boo xaree xolam lañ dee fekk mooy magasin wala muy voyage di dem di dem ak ñëw kon ñun itam nañu am ay gis-gis yu gën a yaatu nañu am ay yu gën a rëy te lii lenn la ci ambition yi nga xam ne jàpp nañ ne boo màggee ëllëg dina jur yeneen xalaat yoo xam ne mën naa indi dëgg lu yaatu li kon si di Basiir ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant mbokk yëpp di wax salaamaaleykum wa rahmatullah. donc euh, dañuy continuer kàddu yi. ndax ñeneen ñoo am kay ñoo fi teewal xam ni Cheikh Tidiane Faye léegi sëñ Babacar moo fi teewal xam ni jaama léegi kii moom mooy kan kii doon wax ni mu ngi tudd Mokhtar Lo mu gën a si ci Ndiaga nekk doomu daara nekk ci daara ji daan jàng basi numéro fépp fa ndongo ji daara jaar mu jaar fa ba tey jii mu nekk inspecteur du travail te ci daara ji la jaar donc loolu moo tax mu indi ko pour ñu ñëw ci kanamu taalibe yi pour taalibe yi xam ne dara jomb leen euh, mu nekk nit koo xam ne euh, chaque année euh, bu amee congé day jël otoom di ko ba mu fees dell ak kaamel bu amee congé bu nekk mu tukki noppal nga mën a mottali noppal du def loolu léegi oto bi ko ba fees teel a kaame di wër si daara yi nga xam ne ñoo nekk Saalum di ko fa yóbbu yaakaar naa daara Saalum yu bëri miin nañ jëmm ji yàgg nañ jàngee kaame boo xam ne moom mii moo ko taxe maanaam ko yow dañuy def invité d'honneur parce que yow exemple nga ci daara ji daara ji nga jàngee mais fàtte woo li nga xamante ne moom mooy daara ji comme ñu nekk kër di fa jàngee saa yu ma doon dem kër damay jaar Thiès boobu moo nekkoon inspecteur travail bu Thiès wax na ma kàddu goo xam ne moo ko fàtte bu yàgg góor ma machine su ma neexoon damay nekk milliardaire ndax ku ne xam na ne entreprise yu gën a mag ci Sénégal ci région Thiès lañ nekk dama ni maa koy contrôlé benn nit dina bëgg dàq employé yi ñëw fay la xaalis bu ñu jeex pour nga signé ko mu dàq benn nit mu ne waaye du ma ko def kon loolu moom ma tax ak yu bëree bëri donc benn boobu rek doy na si tey su ko neexoon mu nekk li nga xam ne moom mooy euh, milliardaire beneen bi tamit. ci li nga xam ne bokk na ci tàmm ñu ko keroog bi ma demee ma toog salle tànt di ko xaar euh, secrétaire am wala assistant am comme woo di toog di waxtaan ak yàlla mooy da ngaa xam lu wala ko xam naa ko man foo xamee man ko jaamal laa xamee man moom man de yàgg naa ci administration mais euh, kilifa bi présider ab cérémonie commencé ni auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ci moom laa ko gisee kii loolu moo tax ma invité ko kon sëñ bi bisimilah. jërëjëf jërëjëf Bachir merci monsieur le maire. bisimilah wa rahmatulah wa salaam wa rahmatulah. شخصية شيخ بشير الجليل أنا واثق من أن كل ما تقومون به من عمل خلال في ضمن هذه المجموعة عمل من شأنه أن يكون في سبيل الخير الحمد لله أنا مطمئن بها وصراحة وبكل صراحة أنا لم أرى في شخصيتي المتواضعة شيئا يجب الذكر أو يجب الانتباه amama shakhsiyatikum aljalila hasaba ma xaala li mu'zamul mundamina ila almajmua min asatida alluga alarabia wa min muallimi alquran alkarim fa ay sharaf ala wa azam min sharafi alladi asbaha yuaddu min ahlillah bal min xaasatillah bal asbaha yuaddu min alladina yastaxiquna galan an yakunu min jiranillah fi ljanna la كما قال الاستاذ المحاضر لو لم يكن الا مجرد التعارف والله لكان امرا عظيما لان اساس هذا العمل التعارف واصبحنا اليوم نعيش في بوتقه بوتقه ماذا تنسهر فيها الشخصيه والعلاقات والهويات لاجل ماذا ما نسمي اليوم العولمه نظام العولمه مما جعل العناصر أو ترى تلاحظ أن البيئة التي كان يتلقى فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوحي تختلف تماما من البيئة التي نحن نعيش فيها في أي زمن في الألفية الثالثة أو في أي زمن أو في القرن الحادي والعشرين. سيدي مفتش لو سمحت تتكلم باللغة المحلية. دما دما بما بما القرآن damay préféré wax arab ngeen baal ma li ma bëgg a wax moo di ne euh, li ma fekk oustaz di wax ñu ne ñan ñoo ko organisé ñuy wax ne groupe groupe liñ baaxoo mooy neneen te jii lii dëgg dëgg lu ñu waroon a publicité lu ñu waroon a télévisé ba Sénégal yëpp xool ne ah ndekete am na beneen anam bu ñu mën a dundee groupe te lépp alxuraan waxoon na ko suñu professeur ñoom ñëpp da nekk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 la ngeen di def munaajaat la waaye yéen seen munaajaat bi dafa daal xel état bu ko déggee day tëdd law li ngeen ci bëgg yëpp mooy lu baax la kooku amul problème waaye li tax ma leen di encouragé mooy tijaaha haadihi annawaiya tuujat anwaa anwaa anwaa shatta laa tuaddu wala tuxsa min unaasin ngeen baal ma ci dañ fi gis ci ci ci parallèlement oustaz yépp démb ba léegi man ma la manhaj bi mu koy defee nit ñi di reetaan ku ci nekk tu te sens à mu dugal reetaan di jàngal mag loolu mooy pédagogie en andragogie pour ni ngay jàngalee mag fi loxoom du jamais loolu su ko continué woon du rek doon fii waaye dañ ko war a yaatal lu tax lay ñëw ëllëg moo gën a bon lay ñëw ëllëg mooy gën a bon te kenn mucc ci li ñuy dund tey mooy buuta xam mooy li ñuy wax mondialisation moo dem ba tënk na doomu aadama bi boo tislee kii saqal te kat kii mi ngi États-Unis yow yaa ngi Londres kii mi ngi li xew tey Chine ban réew moo ci mucc amul te loolu la nag fi mu ne école bi beeg lépp lépp na lépp lu ci gën a man arsalnaa alayhi sayhan ومنهم من أخذته ومنهم من أخذته ومنهم من فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذه سيرا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا xoolal xeet yi jiitu yépp Nuux Huud Samuud Luut Firawna ñoom ñëpp li leen alal kaana shay'an yuraa luñ doon gis la tey ñun suñu li ñuy alal kenn ko gis mooy lan virus bu nga xamante ni laa turaa bil ayni mujarrada waaw moo tax dama lay yaram wallaay foog mucc nga muccoo kenn muccul lan mooy mucc ñu góorgóorlu delli ci benn nizaam asmaa yépp benn isme moo am communisme dee na léninisme dee na marxisme dee na capitalisme dee na illa ismallahi al doomu doomu la limité te foofa mooy li ci gën a neex mooy ñun ummatu seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ñu jox loo nga xamante ni ba bu yombal xiyaam dañuy mucc xoolal tey jii oustaz li nga doon def fii tey jii mooy dem Iqra sóoratu Iqra ñun waxuma baat bi nëkk a commencé ci ñun ci suñu téere bi mooy jàngat saar mu am ni saar ñu tuddee ko nag jàngat ci ñetti condition Iqra bismi rabbik Iqra wa rabbuka al-akram Iqra inna ila rabbika rujaa waaw oh, xoolal lii bu ko expliqué woon nit ñi lan mooy loo loo nekk nekk nekk xale boo xasee egg iqra yow vacciné wu nga ci li nga xamante ni tey jii mooy tukkal àdduna benn waaye comme li nga wax léegi oustaz mu ne man de sama doom ci man daal li muy wax bu tëddee xaw ma lan la wax naa nii ma ko waxee mu ne man daal sama doom mu ne moom moom ñooy fanaan xale bu jigéen la xam nga xale bu jigéen bu toll ci 14 ans am na portable mu ne moom bu guddee ba bët set li muy wax xamul lan mais at bi tukki na te wane leen mënu ko langage bi ñuy utiliser c'est collègue si ñuy utiliser c'est collègue li ñuy seetaan loo muus muus muus muus la preuve mooy xoolal xale yi juddu tey jii ñoo la dàq téeméeri yoon portable même su ko jàngul xam nañ ko loolu mooy seen loolu mooy jamono moo tax alxuraan du mës a du mës a sap sappi laa yaxlatuhu kasratu raddi min kalaami sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam soo xam alxuraan li may jeexale ngeen baal ma ma guddal téeméer dégg leen wax hadis bi yonent saa moo xam mu ne dafa xëy ne saaba yi fa kayfa bikum idaa lam ta'muru bil ma'ruf wa lam tanhaw anil munkar dafa xëy ak ñoom waaw mais nu ngeen ni muy mel ci yéen bis bu ngeen xëyee ba dootu leen jàngale lu baax dootu leen tere lu bon. ñu ne ko aw mumkin hada ya rasulallah. yéen ci saa saa daal dëgg dëgg moom na nekk mu ne bal huwa dina gën a tar dina gën a métti fa kayfa bikum ida lam ta'muru ida ida amartum bil munkar wa tanhawna anil ma'ruf nu muy demee bis bu ngeen toogee ba xëy di déglee lu bon. di tere bu baax waaye loolu ndax mën na nekk yoon saa salaam ñun ñu ak ñun ñun da nga fàtte ne xanaa moo ne suñu critère de sélection kuntum xayra umma uxrijat linnaas taamuruna bil maaruf wa tanhawna anil munkar wa tu'minuna billah mu ne bal huwa ashad dina a bikum ida asbaha al maaruf munkaran wal munkar maarufa. waaw waaw waaw mu ne naka lay demee nit ñi doon xàmmee bay na taarix ba taarix diggante lu baax lu bon nit ñi mënatuñ ko xam parce que dañuy xëy xale yi màgg ñuy ñëw di ëllëg ñoom buñ gisee lu bon duñ xam ne lii mooy lu waaye di ki jàpp ne gisee lu baax duñ xam ne lii mooy baax la waaye lañ màggee lañ xam dañuy jàpp ne lii mooy lu bu ma ko waxee tey jii peut-être nga wax ne dëkk sëñ Touba dëkk Alaaji Maalik waaw ak sëñ Touba ak Alaaji Maalik def nañ ñu waroon def de ah waaye problème bi mooy lu ayna alladina kafaru min bani israila ala lisani daawuda wa isa bni maryama dalika bima asaw wa kaanu yaatadun dañ doon mooy di def lu bon loolu amul benn problème mooy lu bon du fi mës a jógee waaye xam nga lu bon kaanu la yatanahawna an munkarin faalu allahu akbar lii moom métti toog ba société bi doo gis kenn ku def lu bon kenn ki jàpp ci loxoom buñ fa eggee nag musiba am na buñ fa eggee musiba am na parce que adda amul imaan mooy lan boo gisee lu bon lu lu mét mu métti sa xol bu baa jeex na waaye dëkk boo xam ne kenn teretul kenn bindatul kenn aayatul da ngay def lu bon sax dina yeneen sa yàlla mu ngi wax ci benn benn xisa benn kilifa bu baax doon jaamu yàlla aabid maaruf min tarafi naas min tarafi jami lazina kaanu xawlaw yàlla yóbbu malaaka ne ko demal dëkk sàngam nga dem nga dem nga dem alak leen suuf sa këpp ko seen kaw malaaka bi dem yónni ma ne ko di ñëwaat di ñëwaat ne yàlla suñu borom dëkk seen jiw la di mu ne ko fa bii fa daal tàmbali ci moom mooy waaye kat alxuraan jaamu yàlla lépp nekkoon ne jàpp ci loxu ba donc ñunu ñu dal am nañ yaakaar mooy tànk ñuy gis lu mel nii mahma kaanat al qilla lu mu mën di néew néew néew néew yaakaar am li bon tey moo ñu dem ba nga xamante ni kenn amatul loo xamante ni di nga ko ñaaw kenn di am loo xamante ni di nga ko naqaru kenn di nga xam loo xamante ni di nga wax waaleykum salaam. jërëjëf Louga yow yow yow beneen yoon dañ lay jël. bëgg lu baax bëgg lépp lu nga bëgg a lire kii moo ko bëgg waaw ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm si sa kan. jërëjëf jërëjëf si sa. salaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar fa tabaarakallaahu di am mbégte lool teew gi ñu ko teewee woon daaw teewee waat ko ren. ñaanoon nañ ko yàlla nangul ñu yàlla nañu yàlla nangulaat ba deux mille vingt et un bokk ñu ko teewee ndax biñ koy ñaan fii xam nañu ñu ne yàlla yàlla jéggal leen te leen man nañ ci tudd ci waxtu bokkoon na ki ñu ci doon rendul commence muy Cheikh Mouhamadou Makhtar radiyallahu anhu booba ba yàlla ñu maa ko mën a toog mu nga ca xilaafaam su ko dundal tey bokk na ci ñi ñu wax ne yal na yàlla jéggal leen te yërëm leen te ñaanal na ko kon fa tabaarakallaahu yal na yàlla dogal ñu ñu fekkee ko déwén ak jàmm te lépp luñ def mu néew mu bëri yal na ko yàlla nangu di sant mboolem waa groupe Darou bi nag ci seeni yitte ci seeni pas-pas seeni bëggante seeni dimbalante ndax ñett yi nga xam ne moom lañ ko sosee depuis Cheikh Mamadou Bassir ubbi ko ak tey mboolem koo xam ne bokk nga ci sàmm nga condition yi nga xam ne moo tax ñu sax groupe bi boo demee ba dugal ci yoo xam ne sax bokkut ci nit a lay woo ci suuf wax la fa tabaarakallaahu nga jàjj boo defee leen loolu yi ñu ngi ciy sant ndax mbooloo boo boo leen dajalee léegoo léeg nga gis ku def lu dul noonu waaye biir groupe darsu bi ñëpp ay doomi bàjje doomu nijaay lañ ba ci Seex Mamadu Basiir ñëpp koy tooñ te loolu yaatu la fa tabaarakallaahu muy famille boo xam ne daal famille bu neexal àndal la famille bu neexal dëkkal la waaye dara warul ko nag lu dul xam-xam xam-xam moo mel noonu kon fa tabaarakallaahu ñu ngi sant loolu fii ñu fi toog dafa nekk ci tukki moom it ñu koy nuyu bu baax da ko siyaar maa ngi nuyu waxkat yi may wax nag maa ngi ko wax ci turu turu waa groupe tas bi yëpp ñoom laa ko waxal xam naa dama waroon a wax ba noppi Cheikh Mamadou Bassir wax waaye nag ñu ngi ciy jégalu Cheikh Ibrahima Sall yéen ñi nga xam ne yéen a amee waxtaan wi Cheikh Ibrahima Ndaw sëriñ Maam Sayn yal na yàlla fayal ñu leen ndax li ngeen di jàngale mënoon ngeen di fayee ko dars ñuy joxe mënoon nañ mënoon nañ di ko fayee ko di laaj crédit wala di laaj connexion te kenn defu ko ci. sa sa Serigne Jibril Badiane mu ne am na groupe bu mu moom mu ne képp ku ca bokk weeru ne trois mille ngay joxe ngir fay waaw jar na ko xam-xam bi ñuy bu joxe ci groupe bi ñu nga xam ne bi ma joxe ci benn rek sëñ mu nekkee Kokoto sëriñ Basiir def nekk ci Kokoto teewul temam ba mu jotee dem na hijab tam ko kon loolu sant la boo xam ne dañ leen ko war a sax war war a defal wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis kon jërë ngeen jëf yàlla yàlla fayal ñu leen ñu ngi sant mbooloom ñu ko teewee góor jigéen mag ndaw di yàlla yàlla ñu yàlla boole dogal ñu fekk ay déwén yu bare bare bari ci ay yeneen yeneen yàlla yàlla fajal ñu fajal leen seen suñu aajo ci barke bi nun yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke sëriñ Mourou Maxtaar kon nañ jàng faata ak def ko hadiyatan li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam labat ci soxla yëpp ñëw nañ ci jàmm te commencé ci jàmm yàlla xàggal ko ci jàmm yéen nañ delluwaat ci jàmm xàgg ci daraja yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xaaju yi ñu mën a tudd ak yi ñu mën a tudd yàllaa ko mën a faj yal nañu ko yàlla fajal feebar yi ñu mën a ak yi ñu mën a tudd a saafara yal nañu ko yàlla saafara jamono xat na yàlla yàlla te teqte ni na yàlla man na ko sañ na ko yal nañu ko yàlla defal yal yi na ñu taxul ñu tàggoote wér na yu ñu taxul ñu tàggoote xam na ñu taxul ñu de sëy bu ñu mën di jox soxna yi te yërëm yi yàlla yàlla tàggatal ñu ñu dégg nangu te muñ na ko sañ ko yal na ko yàlla def ci barke mag ñi nga xam ne ñoom lañ ko tuddee ku mel ni Baye Hadj Mamadou ak Oustaz Cheikh euh, Cheikh Tidiane Gaye ak Serigne Moustapha Cissé sama borom xeesal seen njëggal ak seen yërmande labaat ñu ci seen barke ba faatal ñu ci salaatu faat اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق نازل الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم ولا يعقد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا بالحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه والمقدار المسيح اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اعطيت والخاتم لما سبق الناس بالحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والمقدار العظيم واقض حوائجنا كما لسائرنا واغفر لنا وارجو اسامة يا الله احسن لمحسننا وافتح لنا وله فتوى رزقي ونور القلب يا الله wa ami man salmuna fi Sénégal kama fi kulli ahdin li ahdi salmi ya Allah wa najjina min balaya jawihna silalan kama min ahdi wasma ya Allah wa najjina mudat alhayati min qata'in bil haqqi wal jasmi wal afali ya Allah wa hab lana siyar al ajsami fi amali taa'ati was-sulhi wal islahi ya Allah wa hfaz lana dinana nufusana ahlana awladana malana diyar ya Allah yassir lana kulla yawmin ما نهاجله لنا وللأهل والوراد يا الله نحن ضعاف ولا ندعو سواك ولا ندعو بابا لغير الله يا الله وجاسيا والدينا وسيوق لنا خير السعادات في الدار يا الله اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من قسم الدنيا وعذاب الآخرة وجاسيا والدينا وسيوق لنا خير السعادات في الدار يا الله فهب لمن قرأ الأبيات منتقدا نفس المرام بيد الفدي الله نفس المرام بيد الفدي الله نفس المرام بيد الفدي الله آمين آمين لا نقرب واحد حتى تمنى بوصدقي الله صلاة تملو الأسر والأبد زمانا ومكانا ومطلوبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد أقسنا بالفرج والتمكين والتف بنا في قضايا سابق